yéen ñi safoo seetaan euh, Dakar midi yaakaar naa nak Dakar midi yàgg nañ ko gis si euh, programme yu mag yi waaye rawatina nag ah programme yi nga xam ne ay programme diina lañ yaakaar naa ñu ngi fii tey ci cité Mbackiyou fay bu ñu nee Mbackiyou Faye nag si cité Mbackiyou Faye gàmmo xel yëpp dañuy dem ci ah ku nga xam ne mooy macha allah jàmbaaru Serigne Saliou bi soppee Serigne Touba bi muy Soxna Ngoy Fall bu ñu nee Soxna Ngoy Fall dañ ñaan Soxna Ngoy Fall borom mu woote gàmm boo xam ne chaque année da koy woote fii ci cité Mbacke fay di ji muy guddi guddi Seydina Mouhamed waaye nag mu ànd ceeg ah ki nga xam ne tey moo ko doole muy borom këram muy léppam macha allah dégg nga ñu ne askia mu ngi ñëw kon yakaar naa macha allah muy loo xam ne ñu ànd ceeg Dakar mii di tey macha allah doxal tuddi kaay samba topp ma dafa mel mu ngi ñëw lañ wax waaw mu ngi noonu ak Dakar mii di ñëwal topp ma mu ngi noonu député Uba saa su ne noonu lay jaar yàlla nangu. macha allah euh, waaw sant yàlla rek. julli ci bi sant sunu ñaari waajur sant Serigne Touba Ngoy Fall jëkkëram suma mag la sama xarit la askiya man nag miinu ma sax Ngoy mais askiya laa miin ñii nag sama yaay yi kii moo ñoom ñoom moo ko fàttali ma bés bi. ma xaaral ma nit ku baax la. nit ku baax la. nit ku bëgg sëriñ Touba la. nit la koo xamee ne lii mu def nii ne mënu ko. ba ba pare nag bëgg président de la république. bëgg première dame. loolu moo waral sama teem waaw yàlla na yàlla dolli jàmm.